waaw parce que itam nag moom de seen bayti bi tabarkalla tabarkalla ndeysaan dañuy génne benn film bu ñu def ci yonent bi ma dem seetaani ko yàgg na a ngi dend ak benn góor xam naa ko xër ci yonent bi la bi ñu génnee fi mu nekk ci xunt mi ni ma doom yi nun noo ko xam waaye yéen ñi nekk ci tubaab yi xamu leen ko ne ko ah, waaw dañ ko xam piir waaye yen ñii ci tubaab yi daal dara ngeen ci xam ne ma am na sax ku ko way وأني والصدق في الخير والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الخير خمت اللي جاتكو مانيكو من عريمي مني ما هي وقت دقني إيه، مانيكو موم فاتي فيلون كو فك ni ko fàtte fi la fekk ma ni ko ba tax na rek tabarkàlla moom noonu rek la waaw mu ne waaw yow daal àdduna daal doy na ah, man daal àdduna daal daal kenn xamatu ko waaw waaye gis nga képp koo gis fii ci Sénégal ci daara la cosaan koo gis ci Sénégal daara la cosaan ña ca université ba di jàngaleeg ña sol costume yaag ñëpp doomu daara la te ñii sama sedde lañ buñ ma nee kenn ci ñoom ma nga jëm fenn pour waxtaan ma ni ko ah, na wax lu mu xam ndax réew mi yépp ay doomi soxna fi ña ca université ba ña ca feneen nag ma ne ci bureau yaag ñëpp ma ne ko xam nañu lu xam te loolu yëpp pour wone ni réew mi loolu la fi yàlla def lool la fi yàlla def tabarkalla tabarkalla toujours toujours toujours dañuy ñaan pour mu dëgër ah loolu nag mooy defar réew parce que penc yëpp penc yonent bi moo ci gën amul werante penc yëpp penc yonent bi ma jóge parce que ci yàlla la jóge ah loolu nag ku muy seen doono di sa alal boo ko amee it dara nekku ci tabarkalla la te yi ko daan yàq mooy yéem yëfu tubaab bu mu ëpp waaye fekk na loolu dootu ko yàq léegi parce que ku ne xam na ni tubaab yee gën a tubaab yee gën a lott ñëpp boo seetee yenn côté yi da ngay xam ni ñoo gën a lott ñëpp mbër ki démb laa dégg yi wax ne dañuy woote xawma sondage euh, pour français yi wax ndax euh, Mitterrand nga àjjana walla ma nga jaanama walla ma nga laraaf ah, lii ku ci àgg kay àdduna bu tukki la ah duñ ko bàyyi mu reposé ah. mom def na ba nopi ay mukallaf juk ba nopi di resultat yi ñu di publier def nga ni yi jaadul ñi ne ma nga àjjana ñu ne 50% yi neñu ma nga àjjana 30% yi ñu ne neñu ma nga ma nga jaanama xawma 18% yi ñu ne ma nga laaraam waaw li li dama lay laaj ndax ay mukallaf dinañu perdre sen temps ndax lu mel noonu kooku doxul ñak lo def rek la du leneen ñàkk loo def rekk la nag du leneen wax dëgg yàlla doo xam lu leen ciy xiir ba tax na doo leen nawati nag doo leen nawati te boo leen nawatul nag foog nga dellu cosaan waaw foog nga dellu ci sa source nag wax dëgg yàlla mm-hmm. kooku farata piir la kooku farata piir la Uhum. mu mel na xam nga Mawlana Sayid Cheikh mooy sëriñu Maodo wante Maodo ku amul morom xam nga bokkoon na ci li ko gën a jaaxal mooy am na urjuza bu ci def sax bopp yi ñuy sëqal te xaraamul bopp yi ñuy sëqal yonent bi wax nañ ni ñetti yoon rek la wattu ci dundam mais Seydi El daf daan wax ni bopp bu ñu sëqal la mu laaj ci yitte ne naka koy man mooy ku deful dara moo tax mu daan encouragé nit ñi ci wattu ba ci biir kër gi am na ci mag ñoo xam ne dañu daan sëqal seen bopp waaye itam daf leen ko daan tere yàlla dogal ñaare lu mu soow bu ko jamono deful ci toogaay it boo demee ba ca kanam rekk nga gis ci ay jeexital léegi àdduna bi ñi ci ëpp ñëpp dañuy wattu te daawuñu ko def ñëpp dañ daan sëqal seen bopp mais moom mësu jànd ndax nee na yitte ba moom lañu ñu amul yitte bañ koy defaree moom lañu dul am ba tax na ay waxinam yi mu daan bàyyi gannaaw loolu ca la bokk bokk na ci itam ormal dund ndundat ormal dund dundat ndax nee na dund dafa am xiima dafa am valeur ba doo def loo jot rek rey def ko jaaxaloon ba daan na ko di sànni ci benn baat ci affaire melentaan yi ñoo rey muy wax ni mat mat bi euh, fayul bakkan bi maanaa bu la màttee dëgg-dëgg na fàttaliku ni

mooy euh, yoo yile ñoo ñoo bomb muy dee ñu naan bu ñu ko deful dafay jur sibbiru ak yu mel noonu wante moom daal ci ci école li mu jàngale mooy daal dund am na valeur bu tax kenn warul boo jógee rekk rey dara bu ko defee ñaar yooyu yitteem la woon bu mu ëpp sax mu mel ni kon dama gis tubaab yi bu yàggul ñu wax ni euh, yoo yëpp du ñu rey ndax yoo yi ci dunde deret mu mat a wattu te matuñu ci yooyi trente pour yi ci des yëpp raxiq lañuy dunde ni yamb di dunde raxiq noonu la ñuy dunde mu mel ni kon toujours jamono daf koy jox dëgg euh, te yu mel noonu dama am sama ñaari mbokk taalibe sama ñaari mbokku daara ñu ngi dëkk fii ci Pikine ñu ñëw seet si ma ma ni leen man daal dama jaaxle parce que téere bi ma amee dama ci gis rab bu tuuti bu nga xam ni fel mat na ci moom ñaar fukk xawma nu nit di def sax ba gis ko ma gis ko muy dox ci kaw kayit gi ma ni mais kii ndax ndundat la ma ni ndundat la parce que mi ngi déplacé ma ëf ko naka laa ko ëf gis ni li mu man yépp waaj na ko pour défendre boppam mu ni pëtt pataaral di ma deglu xamna def na c'est un géant <laughs> ma dal di gis li gor gi doon wax ni ndundat xébal ko dundam musiba la waaw ndundat dal xébal ko dundam musiba la ëpp na def sax et eh, suko ko yoy yooyu moo ëpp doole bàyyi ci xel moo ëpp doole genn càggante gi waaw ndax itam soo amee kilifa bu nga xam ne xamuloo fu mu jële te sonn na ba ñépp amoon ci lu baax am na ko dangay fexe ba di ko sàmmal yi ko gën a yitteel waaw te moom loolu yàlla defaloon na ko ko mu mel na kon itam aussi bien du côté diine que du côté politique bu farlo amul rek aduna tukki aussi bien du côté diine que du côté politique bu farlo amul rek aduna tukki te euh, xam nga yonent bi liko ko yàllay fonk yépp mësu jox pouvoir kon aduna tukki ndax yàlla mi mu jox pouvoir seetal fa mu mujj loolu tax mu éviteel yonent bi loolu bañ ko pouvoir jox ko contre pouvoir jox ko contre pouvoir ci religieux d'abord تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله gis nga kooku contre pouvoir la ci kanamu ñi amee diine ji parce que ñi amee diine dañuy woote ni dañu am pouvoir mais bu ñu dajee ku yàlla jox loo xam ne contre pouvoir la foog ñu yaru walla bu ñu yaruwul dañuy weer seen bopp parce que ki ni man maa amee diine ji am ko jóge fële ni la kaay nu dellu ci suñu borom nga mer fekk na jubaloo fekk na jubaloo bu fekkee ni ñi amee politique bi la itam contre pouvoir lañ ko jox mais joxuñu ko pouvoir looloo tax mu fekk buur ku donn nguur ca maamam ya ba léegi mu ni ko aslim taslam ah yutika allahu ajaraka marratain fekk ku donn nguur ca maamam ya nga ñëw ni ko tuubal jébbalal sa bopp sa borom yàlla far la ñaari yoon far la ci àdduna far la ci àllaxira moo tax contre pouvoir moo ëpp doole pouvoir amul werante amul werante ah xanaa ca sama mbokku dex ga ndeysaan ci xale ko gise ñu di ko ci ñeewantu lool eh, noo bokk dex ga ca wàllu noo bokk euh, ñoo noo bokk euh, jàqar ba noo bokk bakkat ba yépp waaye dafa tëxat mu ñëw di yërëmtalu ni dafa bëgg nekk président ñu ni ak yow lu tax nga bëgg a nekk président mu ne parce que liminaat rek la bëgg te dégg naa boo nekkee président da ngay toog rek ñuy xel di la jox ngay naan ma ne ko bu doon loolu kay àdduna tukki ma ne ko xamuloo ni boo amee moo ne léegi sax man nga dem fii jënd fa lool waaye tabarkal tabarkalla tabarkalla képp ku amee pouvoir war nga ameel sa bopp contre pouvoir il le absolument

am lu ci dugg lu ci bokkul bu ko defee kenn du la ñeme nit li dugg ci diine ji eh, nangam nangam bu fekkee yaa amee doole waaw euh, dafa am sama benn wëllëre muy Boubacar Obey Diop dañu dajee Paris mu indil ma benn journaliste ñuy waxtaan ma mu ni ma dem bëgg rek nga tànnal ma benn aaya tubaab la de benn aaya bu ma mën jëriñu ma ko man daal benn laa ci gis boo mën a jariñoo te mooy wa tilka al ayyaam nutawiluha bayna annaas mu ni ma lool lu mu firi ma ni ko yàlla nee na lu ne danaka jox moomeem ma ni ko dafa xëy rekk fal diine nitu diine yi lu leen neex ñu def ñépp ragal leen politique yi ragal leen économiste yi ragal leen ñëpp ragal leen ma ko mu bàyyi ka ba dox la ka sob mu fal politique fal politique yi ba borom diine yi topp ci seen gannaaw di daw ma ni ko mu xëy fal économiste yi ba politique yi ak boroom diine yi topp ci seen gannaaw di daw ma ni ko mu xëy fal terroriste yi ba fu nitu diine xëye di muslu ci ñoom fu nitu politique xëye di muslu ci ñoom fu économiste xëye di muslu ci ñoom ma ni ko moo lay won ni lu mu fal moo la folli lu mu fal rekk moo la folli mu ni ma jarul jarul réflexion bu ëpp boo ubbi woon léegi télévision bi yi nga wax yépp dana ci feeñ mu ni ma léegi terroriste yi ñoo amee àdduna bi amul kenn ku leen ñemeeti xam nga loolu euh, tegtal la ci ni pouvoir ak contre pouvoir rek ñoo am mais ki amee pouvoir mën na fexe ba amee contre pouvoir te mooy mu fexe ba contre pouvoir waroon a taxaw yedd ko moom mu taxawal fa boppam yedd bopom kooku moy xurriya un homme libre moy kooku ki bolé pouvoir ak contre pouvoir tey ci loxom kooku c'est un homme libre leneen amul mu melni ni yep nak générosité de ko may nit ki mom bu fekkee yonenti bi dafa ñew sallallahu alayhi wa samp pénc mi sampe ko turu yàlla fexe ba xare ak jàmm di jumtuwaayi yàlla fexe ba surga ak sang bokk métier dafa mel na rekk pénc mi ku ca dëkk war nga yokk yitte kooku noonu rek la toll bu ko defee nag tudd nañu wàllu jikko tudd nañu wàllu jikko wante jamono bu nekk dana la tuddal jikko mais def laa tuddal jikko bu dëppoo ak li xew te lu am solo la lu ko mooy dinga nga safaanoog ñëpp te itam du am benn résultat parce que jamono dafa am lu mu laaj te kooku kii nga xam ni yàlla may na ko ci te may na ko ci te mu dégg yonent bi di interpréter ay jikkoom ci ni ko si Hadj Malick nettalee mooy sama turando moom lañ doon wax léegi gis nga moom bañ na aada ba yàlla feeñal ci moom karaama ndax bañ aada xam nga moom yaayam ak papaam la mbas di xalaat fu mu leen di jaar ba dog tënk moom Cheikh loolu doyul ñu may ko soxna te soxna doy na tënk mu di ko xalaat di ko xalaat ba ci benn bëccëg la papaam ak yaayam faatondo ci benn bëccëg kooku karamam la mu woo soxna mu ni ko ci aada laa denc mais dencuma la ci xaqiqa ndax mënuma ko yow sang nga te man surga laa doomu famille nga te man cappaculi la awma dara ma di la ñaan ñu tas sëy yaayam gaañu na papam gaañu ci benn fan bi ñetti fan lañ ci teg mu ñaan soxnaam pour ñu yéwénoo mu jéggal ko parce que amul kàttanoo amee ko xam na ko neena góor gu jigéen kenn mënu ko denc kooku d'accord ceeg moom mu soog a jël bagage am topp àll bi kii mu mujj denc xamul turu ndeyam xamul turu baayam la fekk ñu jàpp ko di ko jaay mu xettali ko ñu jàpp ko di ko jaay mu xettali ko ci li mu am a kës néew ñu bàyyi ko moom parce que dundi dama ko jënd bu ko waxee rek bakkaar daf ko xettali ñu bàyyi ko moom mu waxaaleeg moom ndax bëgg nga ma mu ne ko parce que sëy mënul nekk te ku jigéen ki waxul ni bëgg naa ku góor ki waxul ni bëgg na mu ni ko ndax bëgg nga ma mu ni ko kenn du la gis di wax leneen ñu soog a ànd ca ilimaan ba mu tuubal ko may ko ko pour wax la aada ni ko cheikh bañe woon ba foofu la mujj jaar keroog bi mu fekkee mag ñi ñuy màggal laylatul qadr ci jàkkam dafa tiit leen ku leen ko sant te gis nga fii laylatul qadr ñëpp koy màggal mais moom masu ko nangu mais Sidil Hajj Malik Eh, daf ko nangu moom daf ko nangu parce que seeni xam-xam moo leen di jox yu mel noonu nga ni kii mooy sama sëriñ gàntal na lii man nangu naa ko te amul kenn ku la mën a jaar fenn ba jàmm la yu mel noonu su la yàlla joxee kilifa yu mel noonu ñu siq la eh, te nga ni doo mën a defaru loolu kenn mënu ko dégg ndax cheikh itam dafa xëy rek topp njëm dafa xëy rek topp njëm ba ñëw Maroc maa ngi ko waxtaan ak mbokk yu dëkk Algérie euh, ñuy jaaxle ci reyante beeg dugg beeg kii beeg yu mel noonu te yu mel noonu dafay am jeexital cheikh dem Maroc ba mu demee Maroc comme gan la ndaw la façon bi muy firee alquran ñoom du ñu ko fire noonu coono dal dikk waaye terewul mu dëgër dem nañu ba di joxe ay dog yu koy ñaanale musiba mais itam mujjul fen xam nga ndaw lu nekk ndaw tollu ci ndaw léjal mag ñi ba ñuy joxe ay dog pour ñu ñaanal la ko pour musiba dal la ca biir ñaan nga nga xëy ba am taalibe bu mel ni El Hadj am taalibe bu mel ni El am taalibe bu mel ni ñi leen jàppale kooka ñaan ñaan nga soppi ku ne yiw amul sax werante te te moom noon la mbiram yëpp noonu la dem mbiram yëpp yëpp yëpp noon noonu la demee tabarkalla yàlla ko defal dëgg la nag mi ngi ay safaanam ay ay ay ay am na ko. ku xam na ko ba itam kenn gisagul lu mu wàññi loolu moo taxoon bi muy bëgg wuy ji boroomam mu woo doom yu góor yi mu am ni leen bu leen nangu kenn tànn xalifa ci yéen parce que dafay delloo si aada dafay delloo si aada bàyyi leen mag ñi rekk ñu nekk fi ci jàkk ji di soow mais bu ñu leen jox benn cër ba ngeen nangu ko ñoom itam ñu d'accord ceeg moom pour wax la moom ni mu bañ a aada te Maodo it noonu la bañ a aada ma wax la ko tey parce que Serigne kër si nettali na ma ko ma dégg mu ni ma euh, euh, sa keroog bi muy waxtaan ak man ni ma daal waa waa xayb nee ñu jox nañu la seen kàddu wante du li ma la jur moo tax sant nañu ma ma jottali la ko jottali naa la ko yaa xam nag loo ciy def li ma miin ci yow nag mooy gàttañu mais ñoom seen mbir nanguwul gàttañu loolu rek laa lay yëg seen mbir nanguwul gàttañ mais gàttañ lu laa xam ci sawat c'est-à-dire euh, doo nit kuy xëccoo cër ba muy tooñ di ñu tooñ di wax ni bu ma dëkkoon morolan it dangeen di sonn rekk waaye ci man la jëm si lii ci ci la bañ aada benn waay dafa ñëw di ziyaara si cheikh ànd jabaram ñu ñëw ba ci bopp dëkk bi mu ni ko fii la tawu cheikh dëkk nan ko ziyaare ji ba noppi ndaw si ni kaanoon ñun cheikh ñu tax a jóg kon yow jàddal man maa nga dem ci cheikh waa ji jàdd ndaw si dem directement kër cheikh fi ñu koy yeesale ba noppi rek muy bëgg a jóg jëkkër jaag si moom itam di yeeslu Cheikh ni ko demal ñu yeesali la fa nga jàddoon te kër taawam la pour wax la ni kenn du foyee rëmse kenn du foyee rëmse kenn du foyee rëmse kenn du ko ñeme umehakika nyeme huko fooy Remzi ba tax na ñu mel noonu ku leen am ñu yar la ci xaqiqa e boo mënul daw aada ba mu jeex itam da ngay fexe ba mu bañ la gaañ waaw da ngay fexe ba mu bañ la gaañ mais aada sore na ci réew mi sore na ci réew mi nag waaw te ñoom boobu jaaxal na leen ci façon bu nga xam ni nit ñi rekk leen ci mën a dimbali dëgg la dina ñu ni aada ju rafet a ngi aada ju rafet a ngi mais yonent bi maamam yépp ci aada ju rafet la ñu nekkoon maamam yëpp ci aada ju rafet la ñu nekkoon mais bi wax yu wàccee dàq na seen aada yëpp parce leneen a sosu léegi xaqiqa moo am aada ju rafet amatul xaqiqa moo am aada ju rafet amatul xaqiqa moo am looloo tax Abu Talib kenn gënu ko woon jikko waaye bi mu dee te mu lu ne mu defal ko yonent bi ba jural ko Ali ibnu Abi Talib jox ko ko waaye bi yonent bi tàggoo yàlla ni ko dama koy ñaanal mu ni ko boo ko ñaanalee rek maa ngi ci sa kaw parce que mushrik la woon daf ma boole woon ak leneen seetal loolu te moo jur ali ibnu abi talib moom abu talib di bàyyi taxu yonent bi mu dee yonent bi bëgg ko ñaanal yàlla ni ko doo fi ñaanal parce que mushrik la woon moo tax aada aada aada wattu rek bu dee ci réew mi nag du yomb bu dee ci réew mi du yomb waaye itam ku ko seetlu ba seetlu ko ba seetlu ko yaay nekk sa sëriñu bopp yaay oriente sa bopp parce que dinga xam ni aada baaxul di xam ni aada baaxul moom boo ko seetloo tuuti rek dal di koy gis gis ko ci waxin yi gis ko ci defin yi doxul doxul koy gis ci waxin yi gis ko ci defin yi ba ci suñu doom yi jàngal luñ leen sax euh, làmmiñu réew mi na mu rafete ku ci wax rekk nga tiit te doo leen mën a gëdd parce que ca lañu toll te yow waxuloo leen ni du noonu ba ci waxin mag ñi dañ ko daan jàngal seen doom waxin parce que euh, par exemple ku mel ni Haj Bekay Seck bu Ndar na nga waxtaan ak moom ku mel ni Samba Kor Fall na nga waxtaan ak moom da gis seen làmmiñ ni dañ ko liggéey

te kooku di toppandoo ñëw may ko yonent bi te jàngalu ko waxit jàngalu ko waxit moo tax ba tey kenn boolewu ko ci sonn yonent bi parce que dafa tàpp pasu yonent bi te kenn du ko def ko tàpp pasu ni ko yal ma yàlla musal ci yow mu ne ko nangu na mu ne ko ñaan gi nangu na musal na la ci man قد عزت والله بعظيم moo tax jàngal sa nit yaral ko làmmiñam même ci alquran dañ koy defal nit man El Hadj Abdoul Aziz defal na ma ko jàngal na ma defaral ma sama làmmiñ ci jàngine alquran moom sëriñ Adi defal na ko ko pour wax la ni fokk danga koy def parce que mag ñooñu nga xam ne ay aristocrate lañu ñu woon lu leen choqué dafay gaaw parce que bëgguñu ko yiwati lu leen choqué dafay gaaw parce que bëgguñu lu yiwati mais am na loo xam ni kenn du ko wax am na loo xam ni kenn du ko wax walla buñ ko waxee bokk rekk ka ko wax tooñ na na loo xam ni kenn du ko wax ba léegi ci waxee ni caaxaan yi sax mag ñi dañ daan wattu daawuñu wax mukk ëtt ëtt parce que c'est choquant diggu kër lañoo wax yooyu yëpp dañ ci àggoon daawuñu wax ron lal suufu lal rek lañu daan wax parce que ron lal c'est choquant ça il faut le dire wala ginaar ma lekk fa ginaar nanguwuñu ko parce que dafa diis ganaar rek la est wax kenn du wax ginaar ginaar kenn du ko wax c'est tellement lourd waxal ganaar rek moo gën woyof yooyu yëpp ko jàngale mu nangam ko wax c'est choquant te xale yi kenn kenn yeewu leen ci yooyu koo waxal ak mu ni mu daal di nangam bu ko du wax wolof ba tax na yonent bi yooyu yëpp bu dee taxaw di wax ni ana afsaxu man nataqa bi daad nee na kuy tudd daad maa la ko dax wala daalin diko tagge boppam ndax ni mu meuna tugg daad te yow ngay taalibe mu lo tuddu daad koku c'est choquant baxul te moko dan titeru ana afsahu man nataqa bi daad ñiy tudd daad ñëpp ma len ko dax way woné mayu yàlla ci mom mais wëlbati sa làmmiñu njaboot farata la farata la bu ko lu ko mooy ci lu choqué nit rek lay lay nekk te baaxul xaw ma nag façon boobu nu ñuy def ba gën ko yokk dëgg la nag gis naa ñu ci jot naa ci kayit yu bare ñu ci dugg di ci liggéey mais est-ce que nit ñi dina leen déggal parce que yow mi liggéey nga ci jot naa téere yi ma ci jox sa papa liggéey na ci gis naa li mu ci def ñi ci déggoo gi yéen liggéey nañ ci mais est-ce que nit ñi dinañu ko déggee noonu foofu la problème bi nekk te il le faut absolument parce que wax bu neex lu neex la waaw wax bu neex lu neex la mais wax buy choqué baaxul baaxul baaxul mu mel ni kon nag eh, sang bi foog ñu roy ko ci loolu ah, mooy sangu sang yi